hur anagi kem tanya ya barina janggu ko manggiu asurun cahal fuya anagi kem tanya ya barina janggu ko manggiu asurun cahar fuya ya nene basbu bas bumujuba kanyi watu terebi se téere bi seen kër ya kaawe na Qur'aana bi muy ab téereem téere boobu nga xam ni mu ko wàcce woon ci yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam sant ko mu lal ko nit ñi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam doon béggeel amul ñëpp amul benn mboolom julit ni dajecinego boromba subhanahu wa taala jire jangitire borombi ludul yalla dana wacce ci ñom ak dal yir len ak yermandem santa ay malaka am ñu ñu wër len mu len di tuddu ca malaka yu kawé yene fa mom yalna yalla boole ci sun jotay bi mbolem ñi nga xamne yit no nek ci kaw suuf diko deglu en direct wala ci yeneen i jamono yëpp ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yàlla nañu boole ak ñoom ñëpp ci ñooñu alxuraan ñi muy xamal alxuraan ñu dund ko donte ne it fayal ñu ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom da doon sit yi aju ci jàkka yi ak groupe yi waaye rawatina suñu télévision yi di IMTV ñu gënoon ko xam ci Islam TV ak suñu mbokk dégg diine yi i tamit nga xam ni ñoo fi ñëw pour jël ko yalna yalla boole leen ci ñi jottali kaddu borom bi jell wa ala yalla jàppale leen ci jàppale képp ko leen di jàppale kon tey mooy ñaar fukkeli fan ak juróom ñeent ci weeru shawwal loolu muy wone ne kon tey mooy suñu séntu bu jëkk su dee ne yàlla dogal ni weer yi feeñ su boobaa ñi ngi dugg ci weer bu ñuy tuddee zul qiyada suñ yi daañ ko tuddee diggu tabaski loolu kon mi ngi noonu euh, ñu bay ci xel bu baax mu tey ji tambe li nga xam ne mooy le huit mais di noonu la huit am huit le huit mai naam mi ngi toll huit mais ci deux mille vingt quatre kon incha allah su dee Cheikh pare na mu jëlal suñu bind bu njëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فهم فيه سواء تهتدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة ورزقكم ورزقكم من الطيب الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني boroom subhanahu wa ta'ala mu ne wallahu ja'ala lakum والله فضل بعضكم على بعض naam wallahu xalaqakum suñu borom yàlla day mooy ki nga xam ne moo leen bind naam wallahu xalaqakum suñu borom yàlla moo leen bind summa yatawaffaakum gannaaw ba mu faat leen wa minkum man yuraddu ila arzali al umur amna ci yéen ñoo xam ne daañ leen delloo ca fa gën a suufe ci ak dund sunu borom subhanahu wa taala mu ni inna allaha alimun qadir yàlla mooy ki xam ca mooy ki am kàttan non maa ngi jéggalu suma micro yi moo joxasoon moo tax ñu jëlaat auzu billahi min asheytaan rajim wallahu xalaqakum suñu borom yàlla moo leen bind ثم يتوفاكم كناب مفاتل ومنكم من يرد إلى أرزل الأمور أم نتي نني دلو تغ فغن صوفي غن دويدي تأك دندو لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بدو خم غناو غناو خم خم دوت الخمة الدرا من ينهون مدن بدوت الخم غناو خم خم تدرا إن الله عليم قدير sa borom yàlla rek mooy aji xam ji mooy borom kàttan gi wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq yàlla day gënale na lenn ci yéen ca la ca des ci li nga xam ne mooy wërsëg wi fa man lazina du nekk mukk ña nga xam dañ leen a bi raddi risqihim di delloo seen wërsëg wa ala ma malakat aymanuhum ca ña nga xam ne moom na ko seen ay seen jaam ya fihi hum sawa ba ñoom ñu yemoog ñoom képp ca wërsëg wa afa bi ni'matillahi yajhadun amoon na xéewalu yàlla la ñuy doon ñoo xam ne nii dañ koy dàq di ko fakk wallahu jaala lakum min anfusikum azwaja yàlla moo def ñeel leen ci seen bakkan yi la nga xam ne mooy ñu ngeen di méngool muy góor wala jigéen mi ngi noonu yaay père wa jaala lakum min azwaajikum def leen ca la nga xam ne mooy seen soxna yi wala seen borom kër yi baniina wa xafada lii di ay doom ak ay sët wa razaqakum min at-tayyibaat wërsëgal leen ci yu tey afa bil baatili yuminuun ama ndax ci neen la gëm wa bi nicmatillahi hum yakfuruun amma xéewali yàlla ñu nekk di ko weddi mi ngi noonu mbokk suñu boroom subhanahu wa taala mu ne moom moo ñu bind na am mboolem ñi nga xam ne gëm nañ diine xam nañ ne yàlla moo leen bind yéeféer yi yàlla doon yónni ay yonent yépp xam nañ yàlla moo leen di bind gannaaw ba suñu boroom mu ne maa leen di faat faat googu it yéeféer yi nangu woon nañ ko ana lan mooy li nga xam ne kay mooy mbir mi mooy gannaaw ba ñu faatoo lan mooy xew bu dee yéeféer moom jàpp ne ne su faatoo jeex na amma bu dee jullit moom day gëm ne la gën a màgg ci lu ñuy ragal mooy gannaaw bam faatoo la gën a màgg ci lu ñuy yaakaar mooy gannaaw ba ñu faatoo di aljanna ak sawara looloo tax ba jullit day ragal lool ak faatoom ci li mu koy fekk ca mbokk faatu googee suñu borom mu ne maa koy def ay du ne feebar mooy tax nga faatu du ne âge mooy tax nga faatu faatu moom ab dig rek la bu ñëwee ñëw na jeex na léegi rek avant may ñëw tafsir sunu mbokk maam Ali bi ñu nekkal fii mi may wax benn jarbaatam bu jigéen boo xam ne da doon góor-góorlu di muuru ñaari fukki la am mu ne léegi ci tàkkusaan lañ ko doon rob yal yàlla jéggal ko yërëm ñaar fukki at la am gis ngeen mbokk mbir bi noonu la mooy suñu borom moo wax ni bi sàngam ngay judd bi sàngam ngay fa amma bu dee jullit moom la ko yitteel tey safaanoo ak yéeféer yéeféer wala ki sàggan moom jamono bi muy dund lay xalaatal fexe ba nu muy def ba dund kër yaag nangam yaag nangam amma bu dee jullit dëgg-dëgg bokk na la koy gën a yitteel mooy gannaaw bu faatoo looloo tax ba dund gi intérêt bu mu ci mën a am ak lum mu kawe su gisee ne su ma faatoo mu lorma ma rek moon ko gannaaw am déet la nga xam ne moo nekk ci dund gi ay jafe-jafe ay tar-tar su yégee ne da koy jëriñ gannaaw ba mu dee rek dana ko jaral mu def ko ci lépp loolu mbokk kon mooy différence suñu boroom moo ñuy faat mu ne nag am na ci yéen ñoo xam ne bala ma leen a faat delloo leen fa gën a suufe ci ak dund arzalil umur mu dem ba dootul xamati dara mbokk loolu yonent bi alei salaam da doon ñaan yàlla musal ko ci yàlla yàlla boo ma dundal ba mu xubbi daas ba dootuma xam dara da ngay gis ngit mën naa màgget ba bu génnee këram du xamati fu këram féete nit dana màgget ba doomi boppam jàkkaarloog moom du ko xàmmi loole mbokk dangay gis ne jullit dafa war a ñaan yàlla musal ko ci loolu ci dund gu mel noonu donte ne ni sunu maam yi daan nañ ko ñaanal te suñ biir yàlla na nga dund bañ lay weer di lay weri mi ngi noonu soo demoon ci euh, kaw gi dangay gis ni yenn mag ñu màgget yi bu buñ demee ba boori dix heures dañ leen di génne teg leen ci naaj bi ba mu tàngal seen yaram bu yàggee ñu daal di yenuwaat dugal ci biir mbokk loolu da ngay gis ne dund la goo xam ne dund gu suufe la am na ñu ci dem ba mujj seen xel xelu xale lay doon mu ngi noonu bu ñu xiifee di jooy liñ bëgg a def def ko fañ koy def ba bu ñu nekkee ñu àndul seen sago sax da gis ñuy dóor seen yaay wala di dóor seen baay loolee kon birit dafa war a yàlla subhanahu musal ko ci loolu waaye nag doomu aadama yi di góor-góorlu dund àdduna moom ñaar rek fi nekk imma nga dee ci sa kàttan wala nga dem ba dootu am kàttan looloo tax yu yonent ci aleyhi salaam daan ñu xiirtal naan ñu ngal la waaye profitoo leen ci juróom balaa juróom bokk na ci loolu sa ndaw gi dafam fu mu yem profitoo ci balaa mag a ñëw ndax bu mag gi ñëwee lu bari la nga doon bëgg dootoo ko mënati alal ci li nga ci am profitool ndax xamoo fu ñàkk di ñëwee temps bi nga am am jot lool profitoo ci xamoo fu ñàkk jot di ñëwee wér gi la yàlla may profitoo ci xamoo fan la wéri di ñëwee am maa nag la tiim lépp mooy sa dund gi profitoo ci xamoo fu la dee di fette xamoo fu la dee di bette xamsan xabla xams loolu mbokk mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni loolu moom mooy boroom xam-xam bi mooy borom kattan gi te mbokk yàlla rek moo am xam-xam bu sax yàlla rek moo am kàttan bu sax ñu ngi noonu doomu aadama nan lay mujjee dee na dañ koy yenu yëkkati sang suul ñu ngi noonu borom bi yit mu ne maa gënale wërsëg ci seen kaw loolee nekk xiiwal gum ñu defal mbokk bu doomu aadama yëpp nekkoon ay milliardaire kon adduna yàqu di bu doomu aadama yëpp ñàkkoon àdduna yàqu waaye mooy ka nga xam ne qasamna baynakum ma'ishatakum fi lxayaati dunya ma'ishatakum fi lxayaati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya yàlla mooy jox ñi xañ ñi ñooñu ñu xañ da ngay gis ne di dem di jaay seen doole ci ñi am ngir àdduna mën a dox loolu ngëneel googu suñu borom yàlla gënale ci suñ biir it firiwul ne dafa doon ki yàlla jox wërsëg moo gën keneen ku dul moom déedéet mbokk jullit ba àdduna sosoo ba tey lu dul ay kaa yu néew yéeféer yi ñoo ëppale ci alalu àdduna am déet ba suñ jamonoy tey dangal nga xool les milliardaires yi ñu xam dans le monde mën nañ cee génn listu vingt boo ci gisee ñaari jurit bari na kon loolee suñu borom moo ko def muy ay nattu looloo tax muy wax ñenn ñu ñàkk a xam ñoo xam ni fa ama al insaan ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu qaala rabbi ak na akraman am na ñu bëri jàpp nañ ne ngëneel dëgg mooy yàlla jox lay xéewal am ñoo xam ne jàpp nañ ne maadaama amuñu rek rabbi ahaanan man daal yàlla dafa ma fàtte yàlla dafa ma nàngam déedéet moo ko julit doomu aadama bi ngëneelam nekkul ci yaatu wërsëg wala gàtt wërsëg bal inna akramakum inda allahi atqaakum amma nag misaal bi yàlla bëgg a joxe mooy lan mooy seen borom alal yii yàlla may ay jaam ndax mas ngeen gis benn boroomu alal bu woo jaamam ne ko nag léegi nag sama alal ji maag yow ñoo ko séddoo ñoo ko bokk li ma ci sañ nga ci sañ loolu ndax dana am déedéet loolu mënta nekk rawati rawatina ñi euh, euh, nga xam lan mooy jaam boko jam bu jek mok fas yi lañ yemel won jeexna bo soxla da ngay dem jaay ko ila akhiri loolu kon suñu borom yalla subhanahu wa taala lim ñu ci won rek moy yalla mi nga xamne ne bind ñepp mom ñepp ñepp di ay jaamam nan nga jappé ne xiiwalu yalla yi am keneen ko xamne ma nga ko yakar mu jël ci xiiwalu yalla yi jox la mu munta nek comme ni nga ni borom alal bi do mukk ab jaamam yi mak mom ci ay borom bi subhaanahu wa taala bàyyi loolu daa ji ne xam leen ne maa leen defal ci seen bopp azwaaj zawju mooy bu dee góor a dañ naan soxnaam bu dee jigéen dañ naan boroom këram di xéewal gu rëy ñu yàlla defal su ko neexoon def ñépp ñu ay góor suñ bëggee doom dañuy dem ca xar ya wala ca nag ya wala ñu ñëpp ñu nekk ay jigéen suñ bëggee doom dañuy dem ci bàyyi ma yi waaye suñu borom moo ñu xaaj def ñuy góor def ñuy jigéen mu ne moo def suñu diggante mawaddatan wa rahma def suñu diggante cofeel ak yërmande ngir yi ku nekk di mën a dale ci moroomam li taskunu ilayha muy xiiwal gu rëy rëy doomu aadama yàlla may la soxna soxna boo xame ni nii dana la wéttili ko doon koo xamee ni nii da nga mën a dale ci moom ila axiri waaye nag mu doon koo xam ne da nga ca mën a amee la nga xam ne mooy ak njaboot ca la nga xam ne mooy lii gën lu doomu aadama di am ca kaw suuf ca mooy yàlla may ko ak njaboot moo gën immobilier oto yi yàlla may la doom yu baax njaboot googe suñu boroom yàlla mën a maa leen ko may mu jaarale yow bu dee soxna se maa la may jëkkër ba nga mën cee am doom yow waa ji maa la may soxna ba nga mën cee am doom bal maa leen may ay sët yu bawoo ci seeni doom te sët yooyu nekk xéewal yoo xamee ne ni aka bari ay doomu aadama li leen seen sët defal seen doomi bopp defalu leen ko la seen sët di jëriñ allaaxira seen doomi bopp jëriñu leen ko am sët bu baax bu jàngi diine fu mu toll di la ñaanal yàlla fu mu toll di la génneel ay sarax say doom moom mun nam sax fàtte nañ la kon xéewalu yàlla la mu may lay doom may la la nga xam ne mooy ay sët borom boobu subhaanahu wa taala it mu ne maa leen wërsëgal ci ay la nga xam ne tayibaat yu ngeen mën a dundee ca loolu itamit di xéewal ak borom boo xam ne ngalawaay doomu aadama heure bu ñu waxee xéewal borom xéewal rek sa xel day dem ci borom immobilier borom compte bancaire yi waaye yonent bi sala sallam nee na man asbaha aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره حذافيرها كيف كو خميني yàlla may na la nga xëy am jàmm ci sa dëkkuwaay alhamdulillah yàlla na yàlla saxal suñu jàmm ji di am ngeen kóolite gu dal di kër ya jàmm nga fa am déet bitig yee lépp alhamdulillah yàlla may na jàmm lii waa Palestine amuñu ko dëkk yu bëri amuñu ko kon yàlla may la jàmm gannaaw ba yàlla may la ak wér alhamdulillah yàlla may la ak wér ñetteel ba yàlla may la loo dundee bi sa keroog nee na àdduna lépp yi xéewal daje na ci yow kenn ëppaleetu la loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax su ko defee borom boobu nag subhaanahu wa ne man mi nga xam ne maa leen bind may leen ay doom may leen ay sët wërsëgal leen ay tuyaaba waaw ndax dañuy dem di gëm keneen ku dul yàlla di jàpp ne moom ci boppam am na lum leen mënal xéewali yàlla yi ñu weddi ko weddi gi gën a màgg ci xéewali yàlla mooy bokkaale ak sa borom heure boo bokkaaleeg sa borom wet di nga ay boo yégee ne am na keneen ku lay jox ku dul yàlla wet di nga yàlla heure boo demee ba jàpp ne am na kuy teggi say lor te du yàlla wet di nga yàlla mi ngi noonu yal na yàlla musal ñu ñëwee ay xéewalam ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ما لا يملك له رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تقربوا لله الأمثال إن الله لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا أكثرهم لا يعلمون يستجيبوا ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم بارك الله فيكم سني بروموني ويعبدون من دون الله نوم داي نيغي جامو غناو ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ñoo xam ne moomuñu ñeel leen wërsëg wi bawoo ci asamaan wala ci suuf ci dara wala yastatiuun ca amuñu kàttan sax ci loolu fala tadribu lillahi al amsal te waaye bu leen dóoral yàlla la nga xam ne mooy ay misaal di ko ñu ngeen koy dendeleel inna allaha yaalamu wa antum la taalamuun yàlla mooy ki xam amma yéen xamuleen daraba allahu masalan abdan mamluuka yàlla ngi doon misaal jaam boo xam ne dañ koo moom laa yaqdiru ala shay'in ca amul kattan ci dara wa man razaqnaahu minna rizqan xasana ak koo xam ne ñoo ko wërsëgal wërsëwëg wu tedd wu baax fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra mu jël ca wërsëg di ca dépensé ci lu nëbb ak lu feeñ hal yastawuun ndax ñaar ñi ñooyem alham wala boog ndax ñoom ñoo yem alhamdulillah sant ñeel na yàlla bal aksaruhum laa yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom day xamuñu wa daraba allahu masalan yàllaa ngi dóorit beneen misaal rajulayni ñaari góor a ngi nii ahaduhuma abkam kenn ke dafa doon ko lu lu mu munta wax laa yaqdiru ala cheyin ca amul kàttan ci dara wa huwa kallun ala mawlaahu ca ma nga doon koo xam ne day wikku ci kilifaam ga moo koy defal lépp aynama yuwajjihu laa yaati bi xayr fu mu ko mën a wëlbati jëme du ko indil lenn lu baax xër yastawi huwa wa man yaamur bil adl ndax kooku dana yem ak ki nga xam ne day digle ak maandute wa huwa ala sirati mustaqim ca moom day mi ngi nekk ci yoon boo xam ne yoon bu jubla la mi ngi noonu bokk suñu boroom day wax ne li ëpp ci doomu aadama yi ñi ngi jaam loo xam ni moomulu leen ci wërsëg ci dara na doon luy jóge asamaan ay taw ya yàlla di wàcc wala luy jóge suuf meññeenti yàlla di meññal suñu borom mu ni yoroluñu leen ko ca mënuñu ko sax te it mbokku doomu aadama day gëm ni mboolemi wërsëgam ci yàlla la jóge bokk na ci loolee xamal ne foo mën a toll yaa ngi jëfandikoo wërsëgu yàlla zahiran wa baatina wallahi mbokk julit fi nga toog nii ay millions de cellules ñu ngi remplacé ci si biir organisme fi nga toog nii yaa ngi nokki oxygène borom bi jalla wa ala boo demee yaa ngi naan ndoxum borom bi lekk la nga xam ne mooy ñamum borom bi ndax am na keneen ku dul yàlla koo xam ne mën na créer loolu nga xam ne nii suñu borom yàlla def na ko borom bi mu ne gàddaluñ leen ko te mënuñu leen ko loolu moo tax ba ki nga xam ne nii mooy borom xel mooy yàlla moom nga xam ne moom dong moo lay taxee moo yor si lépp doo jaamu keneen ku dul moom abadan motax julit day fàttali boppam di sept fois au minimum tous les jours ay yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yàlla ñun yow rek la ñuy jaamu ci yow rek la ñuy dimmindikoo ay lépp lu ñu soxla ci wërsëg ak leneen ci yow dong lañ ko yaakaar na xam ne yow dong yaa ko man borom bi mu ne ay waay bu leen dóoral yàlla ay misaal ca mooy fala tajalu lillahi andaada yàlla kenn melul ne moom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 ñoo dem ba yàlla nattu leen ñu réer ci aw réer ci kaw réer ne malaaka yi ay jigéen lañu lu mel noonu it ngeen di gis ay doomu aadama yi dem ba naan sëñ diw de yàlla la mi ngi noonu sëñ diw de yàlla la kaza wa kaza lépp yu ne nga dégg ko ci loolu misaal yu ne nga dégg ko ci loolu ba bokk na misaal moo ma sa dégg benn waay kilifa gu ñuy wax ci Sénégal gu mag ab taalibeem da koo téem na ko ca yàlla hey yaay yàlla cay yaay yàlla fekk fa benn naar mu ne ko waaw doo tere kii mu naan la yaay yàlla mu ne ko waaw wax nga dëgg de du ma yàlla de waaye indi nañ ko indil siwo ndox ñu indi ko siwo ndox ne nañ ko indil benn peñu sukkar ñu indi peñu sukkar ñu dugal ko ci siwo ndox ba mu ba mu jaxasoo ba seey mu ne naar bi ndax mën ngaa teqale sukkar seeg ndox bi mu ne ko déedéet mu ne nag ku mënul teqale sukkar beeg ndox mu bi mënumaa teqaleeg yàlla mbokk loolu wax yooyu ndax ndax mooy misaal li si borom la tadbirul lil amsal mbokk yàlla du kenn kenn du yàlla yàlla mooy yàlla keneen ku dul yàlla mbindaafoonam nga jaamam nga mënoo sañoo xamu yàlla moo xam yàlla moo man inna allaha yaalam wa antum laa taalamu loolee ñu bàyyi ko xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala mu ne beneen misaale ngi nii bay dolli ci bu njëkk ba benn jaama ngi nii jaam la de un li noonu ñaareel ba amul kàttan ci dara jaam la amul njëriñ bi gars jaam lañ koy lañ koy soxla mooy mu mën a liggéey waaye jaam la amul kàttan ci dara ba pare ndax ku mel nii dana yem ak koo xam ne yàlla daa yaatal wërsëgam mu cay joxe ci lu nëbb di ca joxe ci lu feeñ ndax ñii daañ yem mënuñoo yem kon nag cant yépp ñeel na yàlla waaye li ëpp ñoom xamuñu loolu mbokk mi wane ne keneen ku dul yàlla ab jaam nga yàlla rek moo yor wërsëg moo koy séddale nu mu ko neexee ci fu ko neexee loolu moo tax ba dem ba yemale yàlla ak keneen loolee mbokk da ngay gis mun munte passé doon donte ne ñi ngi dund jamono joo xam ne la ëpp ci nit ñi keneen lañ gënale sax ci kaw ci kaw yàlla la ñuy sant keneen duñ ko sant yàlla loolee mbokk mi ngi noonu waram mën bala aksaruhum laa yaalamuun waaye yow jurit yow xamal ne alhamdulillah sëñ caam bi nga sëlmalee léegi wax nga 33 fois alhamdulilah am déet yaa ngi noonu 33 fois wax nga ko alhamdulillah lan mooy alhamdulillah mbooy mboolem sant yépp ñeel na yàlla jalla waala nga gëm ne mboole mi xiiwal ci yàlla rek la jóge nga ne alhamdulillah feeñal ko ci salamiñ yaa ngi delloo cant yàlla te it alhamdulillah maadaama ne nga sant ñeel na yàlla kon nit da ngaa war a sant yàlla nu ñuy sante yàlla mooy i'malu i'malu ala daawuda shukran sant gi dañ ko war a jef ca mooy mboolemi xéewal nga delloo ko fa neex yàlla boo doon wax un million de alhamdulillah par jour ci xéewalu yàlla yi tegoo ko fa neex yàlla sa un million boobu égal zéro te yàlla am déet alhamdulillah li muy firi mooy cant yi ñel na yàlla kon xéewali nga jël ko delloo ko teg ko fa neex yàlla loolu rek mooy njëriñam benen misal bi suñu borom di door mu ne ñaari góor ngi ni kii dafa doon kullu donte ne ab komam ñu koy firi koo xam ne dafa dafa muuma rek du du dégg du gis du du dégg du wax waaye kuli hal du wax amul kàttanit ci dara ba pare di wikku ca kilifaam mën nañ wax ne benn muuma ngi ni bu paralysé mi nga noonu benn muuma bu paralysé muuma na ba pare mënul gesticuler xam ngeen muuma yi am na ñuy mën a bind ba ñu xam li ñuy wax am déet am na ko xam ne mën na taxaw gesticuler ba ñu xam li muy wax amaa nag moom boo ne ne muuma na ci amul kattan ci dara laa yaqdiru ala shay suñu borom mu ne waa ndax ko mel nii dana yem ki nga xam ne moom day taxaw di digle ak maandute ya'muru bil adl mbokk maandute mooy lan mooy ku ne ñu jox ko ak xam la jiitu ci maandute mooy laa ilaha illallah ñu jox yàlla ak xam jaamu ko buñ ko bokkaaleeg dara la jiitu ci maandute ci al adl mooy ci yàlla bi ñu bañ koo bokkaale dara ci topp gi nga xam ne dañ koy topp ci lim ñuy jàngal lu jóge ci yàlla gannaaw bi it al mooy woote jëme ci njub atte atte bu jub woote ci la xam ne nii moom mooy ngërëmal yàlla lii mooy al adl suñu borom mu ne ba pare moom mi ngi teg ci siraatal mustaqim li muy woo nit ñi loolee moom moo ci jiitu li muy woo nit ñi loolu lay jëfe waaw ndax ñaar ñi daan yem muuma bee tëdd paralysé ak kee nga xam ne ma ngay jóg di jàngal nit ñi mbaax di leen woo ci mbaax sax ci mbaax ndax ñaari ñi daan yem du ñu yem loolu it mbokk bokk ne misaal bu ci borom xam-xam yi wax mooy képp ko yaakaar ca du yàlla nga xam ne amul lenn loo xam ne ni mën na la koo tegtal ba nga texe àdduna ak àllaaxira yàlla kese mooy ki nga xam ne boo ko yaakaaree wàcc ne ab téeréem yónni ne ab yeneen tam moo wax la yoonu maandu te yoonu texe ba nga xam ne boo ca jaaree texe àdduna texe àllaaxira yàlla na yàlla boole ne ko wuyu ca loolee mi ngi noonu Cheikh Ousmane. wa lillaahi ghaybu samaawaati wal ard وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن ما يمسكهن الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بارك الله فيكم سني بروم جل وعلا مني ولله غيب السماوات والأرض ñeel na yàlla lépp luy kumpo ci وما أمر الساعة إلا كلمح البصر لغا خان موي ميرو بسبنت دو دارلو دول خفوك اك غيس ريك خفوك بد كسي او هو اقرب ولا مودون لو خان موكو غنا جيغي اي غن كو غاو ان الله على كل شيء قدير حملن ن يالا دي بيب مير موي كتام كاتان والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا yàlla moo leen génne ci seen biiru yaay yi xamu leen dara wa jaala lakum samaa wala absaara wala afida mu def ñeen leen ak dégg defal leen ay bët yu ngeen di gisee defal leen ay xol yu ngeen di xalaate laallakum tashkuruun ngir ngeen doon ñuy sant yàlla alam yaraw ila tayri musaxaraatin fi jawi sama ama ndax gisuñu ci picc yi nga xam ne dañ leen a tàggat ci jawwu asamaan bi mooy espace asamaan bi maa yumsikuhunna illa allah kenn jàppu leen ku dul yàlla inna fi zalika la ayatin li qawmi yuminuun nekk na ci loolu de ay kawtéef ñeel xeet yoo xam ne dañuy gëm mi ngi noonu <clears throat> mbokk suñu boroom dani moom rek mooy ki xam xaybu yàlla subhaanahu wa mooy ki xam xaybu loolu moo tax ba bokk na ci njuumte yu rëy koo xam ne def na jullit la ba pare sol aw lam dem ci koo xam ne da koy xamul xëy bu mu naan da koy seetal wala da koy defal lum mën a doon mbokk loolu ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk bal mën na laa yóbbu sax ca nga weddi diine ndax comme suñu borom nee na moom doo nga xam xëybu képp koo yaakaar ne mën na la wax sa avenir yow yaa ngi weddi la nga xam ne mooy motax tax bari sallam ni ku seeti ab kat mu wax la kumpa nga gëm ko faqad kafara bima unzila ala muhammad ku mel non weddi naa quran borom bobu rek moy ki xam xëybu bi am ci asman ak suuf lolo tax ba julit heure bo xamé ni ni da nga nan dana def dara loy wax moy insha allah li ñëwagul yollu yar rek moko xam ni ngi nonu dana def dara ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء ان يشاء الله لا يخم ان شاء الله لولي بوك جديتا يونت بي صلى الله عليه وسلم جانغلون نانيو ني ادم لو بيري تي كومبا ما دام ليك ليك سيك ساكاتا مو جوخ ني سوليوشن بو بوك لو گم تي تاريخ يا ولا تي اوروسكوب يا ولا تي يينن يو مل نور موي جوليل نياري ركعه nga ne yàlla maa ngi lay tànnaloo sa xam-xam di la dogaloo sa kàttan di la ñaan say ngëneel ndax yaa xam man xawuma yaa man man munuma lii may bëgg a dugg bu baaxee sama diine baax sama àdduna yombalal ma ko barkeelal ma ko bu baaxul soril ma ko te indil ma lu ko gën lii mbokk la jullit di def gëm ne rëy bu yàlla subhanahu wa taala dong dong dong moo ko xam jàpp naa ne képp kuy wax ci xëy bu ci sunu Sénégal gi wallaay man ngeen xam moo gaa ana saltige yi ah ana xaaw yi ana waa gindeli ana waa seetkat yi kan moo mënoon a xam ne Diomaye fay mooy nekk président de la république <laughs> ku mënoon a wax ci ñoom kan moo ko mënoon imaginer mbokk loolu rëy bu la jours avant yaa nga tëdd prison dix jours après yaa nga tëdd présidence mbokk lii rëy bu la yàlla rek moo ko xam te mu nekkoon benn mbir crucial boo xam ne en Sénégal gépp ban lu ëpp ci àdduna bi ñu ngi doon xalaat Sénégal nu ngi def kan mooy euh, wuutu président bi fi nekk kenn mënu koo xam ku dul yàlla jàll waala am déet li rek war naa yee doomu aadama yi mi ngi noonu ay xalif ay kilifa yu mag ci diine sax dérapé ci loolu muy wone ni rëy bu yàlla moo ko moom amma borom bi nag ni lii xew bi si penc nga xam ne yéefiiri dañ ko weddi te mooy dekkal gi yàlla di dekkal ay jaamam suñu borom mu ne gis nga yow doomu aadama ni ngay xefee ko xippi doomu aadama li muy def la ci ëpp mooy xef ak xippi yu ma boo mënoon di xool sa bopp ñaata yoon ngay xef ak xippi kenn xamu nu mu toll mu ne gis nga xef xippi ni mu la ni mu ni mu gaawee ci yow ak ni mu yombee ci yow noonu la dekkal samay jaam noonu la yombale ci man innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun yàlla lu mu bëgg nan amal mu am <coughs> donte ne ni di julit xamal ne it yow saa ñaar la mooy saa boo xam ne ñépp a fay daje ak saa boo xam ne moo la fay yóbbu doomu aadama bu nekk am na lu koy yóbbu àllaaxira àllaaxira gëm ngi koy gëm mooy gëm lépp luy ñëw gannaaw de lépp lu ñëw gannaaw de rek day dugg ci gëm àllaaxira sakaraatul mawti bi lay dal lay xew ca bàmmeele lay xew lay xew lépp ci yàlla lay jóge te it mbokk doomu aadama yi mun ñu nekk fii léegi di waxtaan une minute après mu bokk ci waa àllaaxira am déet mi ngi noonu une minute rek bokk ci wàll xir loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne mooy ki am kàttan ci lépp lu mën a doon inna allaha ala kulli shayin qadir loolu tax ba julit moom da koy doyloo ndax day xam lépp lu ma yaakaar yàlla mën na ko lépp lu ma bëgg yàlla am na ko inna allaha ala kulli shayin qadir moo tax du ko bokkale kenn borom boobu nag di wax ne maa leen génne seen biiru yaay xamu leen dara bokk yàlla moo ñu génne suñ biiru yaay yi nettali nañu fi mu jaar ak ñun avant mu ñuy génn keroog bu ñu fay dugg la commencé ak ñun toq na mën ni am déet jaar ak ñun ci alaq mudoxa izam muuruñu ba mu soob ko mu génne ñu ci képp koo xam ne gis ne doom fa muy génne ci jigéen nga xam ne gaa yi lii kaw fu yàlla la am déet ñu ngi noonu yàlla ko yombal summa sabila yassara yàlla moo ko yombal nga génn génn sa biiru yaay mi ngi noonu ana bañ sëñ <laughs> ana bañ sëñ diw moo la génnee <laughs> loolu mbokk mi ngi noonu yàlla rek mooy kii bind moo la bind ba nga mat amul lenn loo xam ni man ngaa wax ni keneen ku dul yàlla moo ko participer ci saak dund wax ji day bëri rek waaye koo mos dégg mu ne man na sëñ diw may ay nopp <laughs> mën na sëñ diw may ay bët wala ay loxo doo ko dégg ba ilaa yawmi diin yàlla moo ñu bind moo ñuy génne bi mu ñuy génnee suñu borom mu ne xamu leen dara doomu aadama buy juddu du xam dara suñu borom yàlla ci mbaaxam may ñu ñuy dégg mbokk dégg googee nga xam ni dana commencé ci biiru doomu aadama mu am sensation di dégg borom bi yàlla may ñu ñuy gis mu may ñu xel loolu mbokk yàlla moo koy maye ana ñaata ñoo judd duñu dégg c'est des millions tey ci planète terre ñaata ñoo judd duñu gis ana ñaata ñoo judd ànduñu ak xel bal suñu borom mu ne xoolal su ma jëlee seen dégg gi naqasallahu samakum wa absaarukum wa xatama ala qulubikum ana ñaata ñoo doon dégg xëy xëy yàlla jël seen dégg déggatuñu mi ngi ñaata ñoo doon dégg xëy xëy yàlla jël seen dégg déggatuñu ana ñaata ñoo doon gis xëy xëy yàlla jël seen gis gisatuñu ana ñaata ngeen gis ñaan doon seen xel xëy xëy amatuñu ak seen xel kon loolu xéewalug yàlla la moo koy jox di ko saxal ci ko ko neex di ko nangul ci ko ko neex moo tax yu yonent ci alayhi salaam bokkoon ci ay ñaanam allahuma mati'na bi asma'ina wa absaarina wa quwwatina ma ahyaytana e yàlla yal na ñu xéewalal bàyyi ñu ak suñu dégg bàyyi ñu gis bàyyi ñu ak suñu kattan fii ak yaa dundal yàlla defaloon na ko ko yàlla na yàlla defal ñu ko gis ngeen borom boobu nag mu ne lii def naa ko la'allakum tashkurun ngiree ngeen sant yàlla xamne li len yàlla defal keneen defalu len ko ngeen doylo ko bañ ko bokal ak ken waxna len leen cant googu ni mi deme ca moy nañu fexe ba xiyu di ñu ko fi neex yàlla sant yàlla moy sa nopi yi lu taxone yàlla jox lako moy nga déglu kaddu yàlla jëfe ko lolo taxone yàlla jox la nopi yi de du won nga déglu musique wala déglu sa kàddu soxna bu neex la wallahi moy allazina yastamiuna alqawla فيتبعون أحسن موي ديغلو كادوك يالا جيفيكو بدي nga xol ci kaw ci fi borom bi subhanahu wa taala xam ci magayam ak hikmam xol bi nga bëgg ci yàlla xalaat ci ci la nga xam ne mooy kaw ci fi yàlla yi motax suñu borom mu ne laqad zara'na li jahannam kaseeran min al jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wala mi ngi non non la mi ngi noonu mi ngi noonu may naa leen ay bët duñ ca gisee moo ne mën naam bu toxee dina gis dix kilomètres waaye lu tax yàlla mu ne duñ ca gisee mooy la taxoon yàlla defal leen bët yi gisuñu ko yàlla dalaa defaloon ay bët ngir ngay xool ci ay kawteefam yéemu ci ay kawteefam la taxoon yàlla jox la nopp suñu borom mu ne du ñu dégg man nam day buñ toogoon fii di déglu la ñuy tëgg ca Grand yof waaye suñu borom mu ne du dégg lu tax la taxoon yàlla may la nopp yi déglu ko nangu ko déglu ca mooy kaddu yàlla ko dug tawxiid xol bi it la taxoon yàlla may la ko muy xalaat ba xam ne yàlla kenn la wéetal yàlla ci sa xol baram ba mu ne nag defoon naa leen ko ngir ngeen sant yàlla waaye wa qalilun min ibadi shakur lu néew ci ay jaam ñooy sant borom bi rek di dellu ci ñuy bokkaale yàlla mu ne ewaay yéen ñi bokkaale yàlla ewaay tey gën a doyloo yàlla xanaa gis leen picc yi nga xam ne dañ leen a tàggat ci jaww asamaan bi bokk picc yi xolal ni mi mel nga gis ko muy toog ni ko yàlla bindee may ko ay laaf day toog muy rek mu ne fiw naaw mi ngi noonu dem nga gis ko mu tàllal ay laafi léegi sax du ko yëngal ca du daanu ban lu gën a yéeme loolu da ngay gis ne mbokk am na ay picc yi jóge angleterre traversé océan ñëw lu mel ne parc juj ci saint louis lu jóge six mille kilomètres ñu traversé ko océan nekk ay jour yoo xamee ni nii bokk na loo xam ne lu jaaxal scientifique yi nan lañuy def ba mën a orienté wu ci plan fixe boo xam ne ñoo gën a jub sax avion yi ni ñuy def ñëw direct fi ñu bëgg a ñëw dellu fa ñu bëgg a dem des milliers de kilomètres nga gis ci ñoo xamee ne nii dañuy xalaat ñii nu ñuy nelawe ñii nu ñuy récupérer ba am na ay picc yoo xam ne bi ñu leen pesé fa ñu doon déparé ndax boo demoon pakk de jut dañ leen di bàggee picc eh, yi ñu jàpp ñu bàgge leen ñii ngi jógee France ñii ngi jógee Angleterre bu ko defee ñoom it ñu bàgge leen pour bu ñu demee ñu xàmmee leen picc yoo xam ne bi ñu leen di bàggee ñi nga fa départ ak 2 kilos biñ traversé océan bi bi ñëwee presque 1 kilo la ñuy pesé suñu borom yàlla subhanahu wa taala bàyyi leen noonu ñu am ligne directe def li ñuy def buñ demee ba pare ci delluwaat directement fu ñu jóge woon. gars loolu kaw ci fi yàlla la ba nga xamee ne doomu aadama yi. loolu suñu boroom mu ne kawtéef mi ngi ci ñel ñi gëm yéefiir yi ñoom gis nañ ci kawtéef ba créé ci ay avion ma tax gaa yi xam ngeen ne avion ci picc la ko gaa yi xalaate di am déet ba boo xoolee avion sax loolu lay firi mu ngi doon mooy appareil volant imitant oiseau naturel li mooy avion avion cinq euh, cinq lettres la a appareil volant imitant oiseau l'oiseau naturel ca la ñu xool ca la ñu gis ak ca la ñu étudier étudier ba gis équilibre bi laa fi am ca la ñuy étudier ba gis elli avion yi ca la ñuy defar ba mën a defar avion ci kàttanu yàlla jàll waala loolu kon mbokk da ngay gis ni borom bi subhaanahu wa taala mu ne nag xeet yi nga xam ne dañoo gëm yàlla ni picc yi di sukkandikoo ci yàlla duñ ko bokkaale ak dara yàlla teg leen ala siraatil mustaqim naka noonu itamit jullit bi wikku ci yàlla doyloo yàlla fokk yàlla yërëm ko teg ko ala siraatul mustaqim am déet loolu moo tax boo demoon ca suratu al mulk borom bi mu ne maa yumsikuhunna illa rahman borom yërmaande ji mu leen téye lii lépp mbokk kon ay kawtéef la yoo xam ne ñi nga ci saar bi nga xam ne mooy suuratu ni am di saaru xéewal yi liñ ci jot a jàng yépp incha allah yeneen xéewal des na yu ñu war a jàng bu ñu fi dajawaatee yal nañu yàlla boole ci jaam yi nangu ay xéewalam yal nañu yàlla boole ci jaam yi sant ay xéewalam mboolem lum ñu xéewal yal nañu wërsëgal ñu delloo ko fa nga xam ne moo ko neex mu defal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi alihi wa sahbihi ajmain waama nag doonte ni mbokk yi amoon nañ ci yenn yi ñu doon laaj man li nga doon wax léegi. naam ku nekk président ci yaa xam yaa xam yi nekk ci kii intérêt waaw dafa doon ci mu nekkee président rek yow nga ma dagg sama kurus nag nag may wooye xaj waaw ala kulli xaal waaw loolu day mooy euh, ay nit ñoo xamee ni ñi daal mooy ñàkk xam rek ndax bu dee ne kumpa kumpa ak yàlla la yow nga mën a taxaw dog ne bu lii amul woo leen ma xaj am na ku de ko ne woon dane bu lii amul sax xamal leen sama baay juruma xam nga wax yooyu ay mbir la yoo xam ne yow kii ku munta wàcce jant bi munu laa wàcce loolu mbokk dogu la ci yàlla goo xamee ne nii loolu moom wax dëgg yàlla li ñu wax rek mooy ak ñàkk xam ñu ngi ñaan rek lii xew delloo leen gannaaw ba wax yu mel noonu ñu koo waxati <laughs> loolu daal lañ leen di ñaanal wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal mbokk kon bu dee amuñ si ay euh, laaj yi ñu doon laaj de de waaw ñu ngi doon euh, delluwaat rek di fàttali ci euh, li ngeen di barkeeloo ci jàkka ji euh, muy 1000 francs yooyu ngeen di barkeeloo ci jàkka ji incha allah képp koo xam ne nii yàlla dana ko ko yombalal te it xam leen ni am na ay travaux yi ngeen gis ñu ngi nekk nii ci jàkka ji ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala ci ay ngëneelam yal na yàlla defal ñu la nga xam ne nii moom mooy tawfiq defal ñu jàmm ci la nga xam ne nii moom mooy ci suñu réew euh, di defal ñu it la nga xam ne nii mooy euh, weer wi ñu nga xam ne ci la ñu jëm nga xam ne moom mooy ubbi ñetti weer yi nga xam ne dañ leen a wormaal ndax euh, suñu borom subhanahu wa taala moo wax ni at mi maa ko séddale ci fukki weer ak ñaar am na ci ñetti weer yoo xam ne dañu ko warmaal mooy bii ñu jëm nii ah mooy ñeenti weer ñu warmaal mu am ñetti yoo xam ne dañ caa tegaloo ñetti tegaloo mooy bii ñu jëm ni di zulqaada ba ci tegu di zulxijja ba ci tegu di muharram di weer yoo xam ne nii dafa ëmb surtout ma ak makka loole ab julit eur boo xamee ne nii mi ngi koy séentu dafa war a ñaan yàlla séentoo ko ci màggal ko يا خمنا برم بنانا ومن يؤذم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كيفكم مقال يا الله سبحانه وتعالى مقال كمل نوني يدي bokk na ci ñi nga xam ne nii ak yàlla mi ngi nekk ci seen xol loolee mi ngi noonu amma ba nga xamee ne nii moom moo ko ñeenteel mooy ñëw ca lu ñuy tuddee euh, ndeyu koor ñu koy tuddee la nga xam ne mooy rajab mi ngi noonu yàlla yàlla may ñu aafiye fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ah <laughs> waaw bis bi mooy lu ñu ascension la xaw ma am déet ah, ah mooy lu ñu ascension wala kulli xaal mbokk jullit nañu xam ne bokk na itamit euh, loo xam ne dañ ci euh, war a doon loo xam ne lu ñuy metti la lool mooy ñun dañ ne mat nañ quatre-vingt-dix-sept pour cent ci ay musulmans su dee ne am na ay chrétiens yu ñu rax loolee wuruñu woon doon ñoo xam ne dañuy yóbbaale ci lépp loo xam ne dañ koy def ñoom buñ bëggee nañ feetu seenuk feet mais ascension mooy ñoom ci li ñuy wax mooy euh, ki nga xam ne moom mooy Isa ibn Maryam yéeg gi ci kaw asamaan loolee mbokk jurit ñi gëm nañ ko jurit ñi gëm nañ ko lañu wuute ak ñoom mooy ñoom dañ ne Isa dañ ko daaj rey ko ca croix ba gannaaw ba dafa daal di dem dëkkee ca la doog yi kaw asamaan amma ñun li ñuy gëm Isa kenn mësu ko daaj ci croix Isa mësul dee Isa yàlla moo ko nelawal yéege ko ci kaw asamaan loolu ñun mooy la nga xam ne ni moom lañu gëm su ko defee ab julit moom loolu lépp loo xam ne nii feet la bu lislaam tëralul yoonam niwu ci rawatina nag feet boo xam ne dañ ko at ci diine bu dee ne ay ñoo xamee ne nii dañoo bokkuñu ñun ay pas-pas xatta seen aada sax waruñu leen caa dem di leen ca roy waaye bokkuñu nag lu gën a garaaw nag mooy màggal la ñuy màggal ci seen wàllu diine wala di leen roy lu ñuy roy ci seen wàllu diine loolee kon ñoo xamal njaboot gi yépp ne mboolem feet yooyu ñun suñu yoon niw ci ñu ngi noonu yal na yàlla saxal ñu ala siraat al mustaqim wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain hur anagi kem tan ya badina yangu ko manggiu asurun jahal fuya qur'anagi kem tan ya barina janggu ko manggiu asurun jahar fuya yanan nenala basbu mujuba kani waktu terebi se سين كريكا ونا قرآن